marché yi nag ci Sénégal bii mooy lakk bu mujj bi waaye série bi gudd na euh, war nañ ci am ay xalaat yu yaatoo yaatu ba nga xam ni marché Sénégal dootul lakk euh, mën naa wax ni président makisal am na programme de rénovation et de réhabilitation démarché waaye programme boobu bañ ko waxee ak léegi boobu ba tey kenn gisagu ko euh, moo wax ni programme boobu pour man du programme bi nga xam ni moo gën ndax te àddina dafay dox gis nañu surtout actuellement bi ñu jógee ci pandémie bi xam nga notre économie actuellement est à terre ce qui explique la rareté également des ressources kon bu fekkee ni programme étatique boobu la ñu war a topp lu gudd lay doon te Sénégal urgence la ñu tabaxaat marché yi réhabilité leen réhabilité leen ba nga xam ni lii dootu fi am man may proposé pour état bi. mu faciliter la mise en place d'une société privée kooku nag nature juridique bi c'est à déterminer lii contenu bi aussi loolu yëpp wax la idée la boo xam ni bu bu bu yaatu la la mise en place d'une société privée nga xam ni day am condition mu tabaxaat marché yi waaye au delà de tabaxaat dañu man pour man sama xalaat dañ leen a war a jox gestion marché yi ndaxte marché yi buñ ko tabaxee aussi yéen yi ci nekk gis ngeen toilette yi ni muy salté entretien bi ça fait défaut mais société la boo xam ni composition bi mën na nekk état les privés et les commerçants mais état lii lii euh, utilité dans cette société mooy day indi garantie pour cette société dina mën a leb non seulement dans toutes les banques avec la garantie de l'État mais également dafa am système financier boo xam ni moo am dans le monde société boobu dina mën a leve des fonds sur le marché obligataire bu ko defee nag état mooy jox mission société boobu marché Touba moom ngay commencé marché Diourbel marché Kaolack ainsi de suite parce que gis ngeen ni marché Touba souvent day am ay problème Kaolack aussi mais au-delà des incendies marché yi ci boppam la ñu war a defaraat yépp jox ko structure boo xam ni lu fa yàqu dina ko mën a defar entretien toilette bi sécurité bi ak lépp moom lañ koy confier ndaxte man ci sama gis-gis war nañu fexe ba marché yi ñi di lal ci mbedd yi ñu fexe ba dootul am parce que ñi ñëw ci marché yi di ko fréquenter bu ñu ñëwee du am fu ñu jaar buntu kër yi ñu lal ko ba bu fees loolu également problème la mais c'est parce que ñooñu aussi bëgg nañu liggéey mais kenn joxu leen place yu ñu liggéeyee loolu moo indi loolu. mais bu ñu amee société boo xam ni bu bu dëgër ci ci xaalis ñu jox ko mission lii ñuy wax marchand ambulant mën nañu fexe sax ba wutal leen ay place yoo xam ni fa la ñuy nekk marchand ambulant jeex ci Sénégal ndaxte ñoom itam ku ci am juróom fukki at wala ñeent fukki at dootoo mën a nekk ci mbedd bi di taxawaalu il faut ñuy réfléchir mooy li may wax ci yeneen dëkk yi. dëkk yi nga xam ni dëkk yu mel ni Kaolack ñi fay dawal moto wala Ziguinchor wala feneen kooku ku ci am 50 ans nooy dawale moto looy defati il faut que Sénégal ñu am ay xalaat pour réew mi jëm kanam li fi am ak néew ñu répartir ko équitablement entre les populations du Sénégal mais bu yëf yi jëmee boor yaakaar naa ni lii li am ci. Euh, émigration clandestine du ma ko cautionner jamais mais dafa am explication dafa am source parce que xale bi bu fekkee ni dafa war a tekki war a yor njabootam bu xëyee café bi muy naan sax dañ ko koy may wax dëgg yàlla situation bu difficile la te ñun jeunesse bi ñu am mais dañ ko war a positiver positiver mais waruñu bàyyi leen ci biir kër yi amuñu liggéey ah loolu yaakaar naa ni doy na waar damay dégg ñuy wax ni agriculture c'est vrai agriculture mën na yóbbu lu bari mais agriculture mënul employer tout le monde mënul employer tout le monde il y a des yoo xam ni il faut que ñu mettre ko en place pour que sénégalais yi vraiment à partir de maintenant waxuma ñëpp danañ mën a am liggéey de waaye ñi ci ëpp fexe ba am lu ñuy suturloo lu mu tuuti tuuti bu ñu tollee ci liggéey mën a am liggéey euh, autre chose également xale yi dañu toll ci liggéey kenn amul formation man ci sama gis-gis pour le Sénégal de demain école primaire yi ak même daara yi parce que man dama bokk ci ñi nga xam ni dañuy xalaat ni Sénégal ñi génne ci école française bi mënuñu ko defar ñoom rek c'est pas possible ñi génne ci daara yi jànge Égypte jànge Maroc jànge fu nekk ñenn ñi nekk ingénieur ñenn ñi nekk ay docteur te bu ñu ñëwee parce que jànguñu tubaab ñu ni fonction publique mënu leen a jël loolu également foog ñu am ci ay xalaat parce que bu ñu def suñu bopp ay tubaab duñ ko nekk jamais euh, langue outil la mi ngi mel marto bi ngay jël pour daaj ñun rek Afrique ñun Afrique jagu ñun rek ñoo fi am ce complexe la ñii di làkk anglais ñii di làkk tubaab boo demee daal le monde dans le monde euh, dans le Moyen-Orient réew arabe yépp ci seen administration arab la làkk boo demee asi réew yëpp seen làkk la ñuy làkk boo demee Europe Allemagne seen làkk la ñuy làkk boo demee Belgique ñenn ñi français la ñuy wax ñenn ñi di wax néerlandais nga dem Italie seen langue la ñuy làkk bu ñu génnee nag jàng nañ anglais pour bu ñu génnee bu ñu demee ku déggul seen langue ñu wax ak moom ñun tubaab yi loolu rek la ñu waroon a jariñ bu ko defee. ci biir administration bi ku jàng euh, arab ku ku jàngul arab sax mën nga cee dugg boo jàngee bind parce que dañu war a transcrire nos langues national nit ki ci langue bi nga li nga nam li nga ci mën a jàng ak fa nga ci mën a egg mënoo ko egg mukk ci beneen langue te nag il est temps ñu repenser suñu éducation man dama bokk ci ñi nga xam ni li ma bëggoon a wax léegi école primaire yi nekk ci Sénégal moitié bi wala le tiers ak lycée yi euh, comment dirais-je collège dañ koy defar ay école technique parce que xale yi bu ñu ku am certificat mënoo wut liggéey ku am BFM mënoo wut liggéey ku am bac mënoo wut liggéey léegi licence sax mënu la jox liggéey waaw kon jàng bi wax dëgg yàlla bu doon métier mu jox la liggéey kon école yi dañ leen transformé métier yi bari na boo demee ci réew yu mag yi par exemple France li ñuy wax artisanat c'est le premier poste budgétaire de la France moom mooy li nga xam ni mooy ëpp xaalis bu muy dugal ci budget France waaye Sénégal bu ñu nee artisanat ñu defee ni ñi ñi yett ay bant la ak yooyu y a au plus de cent métiers dans l' kon nag Sénégal war nañoo jàngalaat nit ñi parce que pour le Sénégalais de demain yaakaar naa ni baykat bi war na koo jàng mason bi war na koo jàng menuisier bi war na ko jàng mécanicien bi war na am école bu mu ko jàngee.